jërë ngeen jëf euh, mbokku téléspectateur ñi nga xamante ni amateur de euh, sport de lutte lamb yaakaar naa ni li leen euh, coach doyen Omez leeral li mu leen décortiquer yaakaar naa rien à dire. Euh, muy technicien macha allah yi nga xamante ni dañ koy bàyyi xel euh, partout ci sport euh, rawatina ci bi réewum Sénégal ñu di ko suivre bu baax a baax su mu mel ni suivre nañu ni nga ko décortiqué mu leer nañ nañ nañ ginnaaw coach yaakaar naa li nga décortiqué amatul dara ñu ciy teg xanaa suñu yenn laaj yi nga xam ne dinañ la ko laaj avant ñuy tëj li nga xam ne moo di jotaay bi mu mel ni Balla Gaye de li ñu gis ci moom balaa ñuy ñëw ci Boy Niang Balla Gaye 2 gis nañ entraînement bi mu indi contre bi mu indi Gris am na différence lool xool Balla Gaye xam ne Balla Gaye liggéey na travail na boo xoolee physiquement ni mu taxawee nga xam ne Balla liggéey na xëy na tey est-ce que endurance bi mu waroon am la amul moo des ou bien. waaw en effet parce que en matière d'entraînement comme ni nga ko faral wax tout le temps dafa am ay ay normes dafa am ay pàcc donc euh, graphique bi boo ko boo ko échecgee rek a chaque instant day am problème parce que gis nga combat bi yàggul joxante nañu ku nekk temps une minute ñu ne cinq ñu damay bëre temps bi jeex ba tout ça donc ci ay paroles yëpp ay communication loolu mais wan nañu ko nañu ko am moins la ñuy wax la résistance la résistance intensité et la résistance récupération mais l'endurance mi ngi ci biir parce que c'est c'est une forme xam ne c'est continu l'endurance c'est toujours continu chez un athlète ak quel que soit l'athlète mais maintenant ci contact bi nag bi nga xam ne moo am ci bëri bi ak ni mu animé ni mu amee rythme foofu il faut que nga am nu ñuy wax ay résistance récupération ak résistance intensité bi nga xam ne di nga ci jógee léegi nag boo am ko emmagasiné ñoom ñaar yooyu moo doon une résistance volume boo xam ne da boole ñaar yi comme ça loolu moo moo feeñ na ci làmb ji donc Boy Niang il s'est très bien entraîné Balla Gaye il s'est très bien entraîné mais dafa doyul parce que euh, li doy ci un athlète mooy nga am un entraîneur comme ni wax rek physique ba le top de minute à minute en relation ak ñi la yor boxe ñi la yor à la salle de musculation ñi la yore ak làmb ji euh, euh, au contact. donc yooyu nekk na norme yoo xam ne ni mbër bi war na ko mën a xam mais làmb ji sincèrement li ma li ñu doon xaar xañ na peut-être et euh, la mauvaise information yi joxe kii dafa gaañu. donc combat bi di am am donc yooyu yëpp nekk na ni heureusement que ñoom ñaar ñaari mbër yi dañ ko emmagasiné wu. Mm-hmm. boole ko ci seen i seen i combat ñu bëree ko. waaw donc a euh, je le félicite surtout Balla je le félicite a je a encourage encore. pourquoi parce que amul li ma ko rek amul lu mu prouvé. rester au sommet moo jafeñ mhm. donc ay magam ni ñu fi jógee ñoom mag ñoom ñëpp ñoo leen fi jógee. Mhm. xale yi ñoo leen fi jëlee. Mhm. booy ñaar bu ëllëg xale moo ko fi jëlee donc c' est à l'avenir des jeunes. parce que l'avenir il est temps aussi ñu tourner la page. Euh, des des des VIP ëndaat yeneen VIP parce que ñooñu je crois que seen temps mi ngi jeex leen dese bari du ko si am plus de quarante quarante et mhm. deux ans ou bien un bombardier qui en a plus de quarante cinq ans. Mhm. tout le reste ils sont à deux ans ou trois ans. donc euh, un athlète doit savoir quand même. terminer à temps. Mhm, xam ne avant mu jeex nga terminer. d' accord euh, ba léegi rek duñu duñu duñu ci Balla Gaye la ñuy toujours parce que tam ni nga waxoon ne favori lu tax ñu jox ko favori moom moom Balla Gaye euh, combat bi da ko jëlaloon euh, lu ne mu nekkoon un de derby euh, bu ñu waxee ne Pikine ni Guédiawaye sport rek la mais derby la woon problème bi mooy Balla Boy Niang daf ko yàgg topp pendant des années pendant trois ans am na benn archive boo xam sax jàllale woon naa ko ñu yàgg di ko topp mais mu koy jaarloo ay circuit mu dem ba jël ki nga xam ne moo di Sa Thiès ba mu jëlee Sa Thiès Sa Thiès am défaite ci kawam Balla nag mu nekkaat beneen charge te a wax mooy dafa mel ni diggante Sa Thiès Balla Gaye tamit jëlaat combat bi de revanche en même temps moom it jëlaat combat bi en main boppam muy nekkaat charge ci boppam euh, mais dama gis ni euh, bëreet bi nga xam ne dañ koy def mais boobu nga xam ne bu ñu nee bëreet topp Boy Niang Boy Niang toujours dafa nekk mbër muy xaar dafa mel ni noonu la naxee Sa Thiès noonu la aussi la naxee ki nga xam moo ni Balla Gaye en effet parce que euh, d'abord dernier bi nga wax ça c'est ça toujours Pikine et, et Guédiawaye ça demeure toujours entre Parcelles et Guédiawaye entre Parcelles et, et Pikine non même face c' est des derby mais di derby triangulaire moo ëpp moo moo ëpp ci ci coow ci làmb ji donc euh, tey Balla comme ni ma ko waxee rek euh, nekkoon am na amoon na charge parce que euh, la charge moo di lan mooy li mu nii daan Sa Thiès moom mu jël ko parce que ni ñu ko waxee ñu am nañu archive bi nga xam te ni tey. De Gaulle bi mu koy wax c'était un combat contre Boy Niang ak. Euh, euh, c'est c'est c'est combat euh, combat contre Eumeu Sène et et donc nag mu nekkoon open press boobu. waxoon na ko ça fait trois ans. Ah, bëri ëpp na trois ans ne yàgg nañ topp Balla Gaye donc mbër dañ lay topp di la topp di la topp nga yaakaar ne yow bàyyi leen xel donc c'est un message bu ñu di jox parce que tôt ou tard dañ bëri je crois Bac Seras mas na ko fi wax Modou Lo xaw ma je à ah, 2 ah, donc yooyu yëpp nekk na loo xam ne ni da ngay dem a dem a dem ba ñu dabante. mais mhm. eh, dabante bi nag souvent xale boobu avantage. peu de peu de xale yi di ci am ay jafe-jafe mais tey gis nañu ne Balla euh, charge boobu ngay wax noonu euh, charge mentale d'abord mi ngi ci charge euh, physique mi ngi ci la charge et la pression mhm. mi ngi ci mhm. donc parce que tey boo sañoon tey day daan. mais mbër aussi euh, bu amee yenn blessures yi. certes c'est pas interdit mais CRG dañu gën a benn circulaire boo xam te ni à moins de 15 jours ou bien un mois de cela nga nga gaañu si donc euh, il n'est plus droit que nga nga yàq làmb jàmbur donc ñoom la ñu war a xool naka la ñu entraîner donc tous les euh, toutes les blessures yi am ci mbër yi c'est par rapport à l'entraînement ou bien même pendant le combat nga am ay claquage dinaa sax ba dégg à la au moment tout sportif man nga am entraînement bu doyoo doyoo doy doy nga claqué man nga am entraînement bu insuffisant nga claqué donc yooyu yëpp ay sàmm muscle la. donc war nañu jëm a xam nu ñuy jàng mus sàmm muscle bi par rapport à la récupération par rapport ak l'alimentation ak par rapport aussi de côté médical. d'accord parce que dañu gis après chute bi gis nañu euh, euh, gis nañ ñi nga xamante ne mooy sapeurs yi euh, donc les sapeurs ñëw nañu wër ko bon ñu woote fii automatiquement mu mel ni y a quelque chose qui Balla actuellement que ni dafa am blessure parce que boo gisee loolu bu ñu bu sapeurs ñëwee ñu woote d'urgence donc y a quelque chose après chute bi. non non je pense que ni mu daanoo aussi même bu dul woon sax ni même loolu aussi mënuñu ko dàq parce que nit ki bu daanoo euh, nit ñoo daanu sa. waa kay coach mu mel ni xanaa fi ñuy daanelee ci Balla rek mu mel ni ba léegi nag euh, Balla dese na ko combat diggante ma ak euh, Eumeu Sène toujours muy Pikine mu nekk loo xam ni du yombaat ci moom parce que Eumeu Sène daje nag moom deux fois am ndam ci kawam ñetteelu combat bi ñu war a daje coach ndax am nga yaakaar tam ci combat bi tamit Eumeu toujours fi mu taxaw la taxaw. publicité sur Jamm ji info. dama ni maa ngi soog a gëm ni daal Sénégal mooy réewum teraanga ba tax na teral bi dàq ci teral yi mooy ataaya waaw waaw tey Fuuta mi xew ci jamono war nga si emballage ak qualité bu sell te mu ci ayib lool foo ko natt ci neexaay ëpp na déglul ma wax la pois bu vingt cinq grammes bi daan ci ataaya lëwal deuxième ak troisième grossiste yi wala demi-gros wala détaillant yaa ngi daw leen gaaw wuti warga Fuuta adresse bi rue 3 angle 16 Médina Sénégal waaye daan naa la daan naa la wóoru ku daan da ngay féete kaw ak warga Fuuta daal moo fi féete kaw neexul ba neexul ak warga Fouta mooy neexal kër gi. Euh, je moi tey euh, euh, mu tax Balla combat bi nga desee moo gën a dur ay ay parce que loolu daal ñaari yoon son poulain mu seen parce que c'est 200 pour cent daan sa frère daan la ànd ak moom nga am fa au moins trois défaites yoo xam te nii. c'est ceci parce que xaar ko woon tout le monde croyait que tey Balla si était à à ce pourcentage qu'on attendait donc Boy warul bëri sax ak moom mais la moom moo moo tëddee noonu un gosse qui est ambitieux qui veut progresser bokkul ak nga xam te ne tey mi ngi génn bàyyiwul xelam ci ginnaaw tey Eumeu Sène day am vraiment tout le moral qu'il faut même bu ko Balla daanee aussi dana woon dese nga ma benn donc day bëri ak moom sans pression. sans pression te Eumeu Sène tu sais que ñëpp xam nañu Eumeu Sène amul pression xaj na peut kay Modou Lo ko jaaxal mais <laughs> comme bête noire day ah, moo ko jaaxal donc mais xam naa ne mook Balla moom euh, du neex parce que d'abord un seen relation c'est amer ils se fréquentent pas donc euh, c'est comme des comme comme xaj ak muus parce que xam nga jubóowuñu mais léeg li nga gis ba gis naa foo xam ne xaj ak muus dañoo bokk balaa di lekk ak cuuj loolu gis naa ko mais bii boo ko parce que du duñu dooleel di baalante dara parce que Eumeu Sène du bëgg aussi Balla daan ko parce que Boy Niang daan na ko donc yooyu yëpp c'est les cas de figure yoo xam te ne Balla da ko war a bëraale Eumeu Sène da ko war a bëraale donc euh, on souhaite que toujours dans comme ñun en tant que technicien nañu que le meilleur gagne donc il nous qu'à se temps parce que combat bi c'est pas encore daté peut-être en fin de saison d'ici juillet juillet août peut-être mu nekk loolu mais amaat na temps temps préparat mais je continue toujours a dire que planning de travail de quatre combats et raisonner sur deux ans voire trois ans deux ans disons defe naa nekk foofu tey heure bi bala waroon nekk au moins comme ni wax à 80 pour cent reducé au moins à 100 pour cent mais bu mu àgg foofu ah dem voyagé na te ñu ñoo ko ñaal ñaanal ko yàlla bu fekkee ne vraiment sa blessure là existe mu tane ak jàmm reprendre encore ses entraînements parce que sport moo bindee noonu da ngay gagné mbaa ñu mbaa ñu gagné la. voilà donc euh, je l'encourage daal et je le félicite en tout mu demaat liggéey waat euh, bu fekkente ni yàlla may na ko kattan ak doole ak ndam mu yàlla jox ko mu génn avec vraiment une belle sortie bu fekkente ni c'est le cas mu génn ci tamit vraiment ça sera une sortie boo xam te ni laa ma xaar ñu kon ci Balla Euh, coach yi tamit ba léegi xam naa li ñu war a décortiquer bari na mais donc ñu ñëw ci côté li nga xamante rek moo di euh, ñu bari di expliquer euh, fin de carrière de Balla Gaye 2 ñu bëri jàpp nañ ni moment bi nii dafa toll ci fin de carrière beneen bi aussi tamit dañu gis ni Boy Niang ñi ko dar ay magu làmb ñu ko dar démb Balla bu ñu xoolee dafa mel ni xaw na manqué boo xoolee ñu ko doon wër ngeen ñi nekkatuñ fi mu nekk loo xam ne lu difficile lañ dëddu nañ jamono est-ce que tamit joué wul aussi ci Balla. waaw je crois que tey. l'histoire de Guédiawaye il faut que les anciennes gloires aussi war mën toogaat di xoolaat combat yi mel nii comme l'a fait Pikine Pikine euh, y a Pape Diop qui est là-bas Boston y son y son frère Ndiaga bon ñoom Pala ñoom Baba Diallo ñoom ah ñoom De bon tout ça ñoom ñëpp se tour mais c'est pas une raison fondamentale que loolu mooy décision que lamb déedéet donc ñoom ils n'ont qu'à si si se mettre au travail liggéeyaat du côté de de Guédiawaye certes ñu ñaanal yàlla ñu ñu fi jógee yàlla ñaanal xaaral àjjana sama xarit moo fa dem euh, donc euh, euh, comment ça Sa Kajoor numéro 1. Balla Gaye 1 comment ça donc ñoo ñëpp Aliou comment donc ñoo ñëpp jóge nañ fi donc baaxaat na tey ñi nga xam te ne nekkoon nañu fii. Euh, les anciens gloires ñu jaar les rênes en main unifier xale yi parce que le pourcentage qu'on qu'on appelle di ko oote au niveau des écuries euh, au niveau des des, des départements gis naa ne euh, am na lu muy defar mais am na lu muy yàq te li mu yàq sax mu ëpp que li muy defar mais baax na tey euh, ñi nekk ngay jowee dajale parce que ñaawlu naa lool souvent ma diggante ay mbër di waxante en par presse interposée kii wax ne lii je peux citer le cas de Gouye Gui et Lac de Guiers ñoo bokk seen Guédiawaye à chaque instant j'entends un Lirou Diane di leen jëm a la raison donc yooyu yëpp mën na ñakk parce que sport li may wax rek làmb discipline la boo xam ne tey mënuñu ko ak dissocier ak sport ak une discipline sportive mais ñi ci nekk nag dañu bëgg a yaakaar ne làmb leneen loo xam ne bokkul ak làmb man boo gisee sax su ma taxaw ci làmb bareetul yooyu bokk na ci parce que nit ñi dañu war gën a professionnel nit ñi dañu war gën te dégg naa au même euh, et c'est normal et loolu man je l'ai toujours dit Mohamed Adé Ndiaye il a il a entraîné euh, Boy Niang mais c'est c'est normal c'est logique il a entraîné Balla Gaye il a entraîné Eumeu Sène il a entraîné euh, Modou Lô mais c'est logique donc ça c'est un métier donc nit ki buy dem di jàng yi def stage am def diplôme am ko tàggu la donc il est libre de faire ses prestations là il mais làmb boo ko defee automatiquement ñu ngañ la mais c'est pas buñ ko bu ñu nga xam ne man may euh, arrêté ak euh, bool mbooloo ñu bëri woon nañ ma mais man j'ai j'ai pas bu man dama ci ay làmb di yor écurie mais sinon man sama bopp mën naa créé écurie man mën naa woote écurie dem CNG affilié wu dem jënd ay mbër dem bëri ji je peux le faire dàquma loolu mais dem man encore ci écurie di fa entraîner yor ay mbër ma je crois que loolu man dépasse na loolu. te tey boo ko doon créé ci des entraîneurs man yor leen. encadré leen di leen def leen nii waxee leen nii toogal leen nii defal leen nii def leen nii. d'accord voilà. d'accord pour terminer ci côté Balla Gaye foofu la ñuy tëjee euh, bon y' a pas de mal des supporters ñu war a wax ni Balla jot na euh, vraiment mu tekki euh, ngembam ginnaaw xëy na contrat bi ko desi ñoom gis nañ loolu parce que li mu waroon def lépp def na ko ndax ànd nga ci loolu. bon d'une part xam nga ñu nag aspect sportif dafa am d'abord aspect financier am nit ki li muy dundee li muy liggéey li muy am yow joxoo ko ko. boo dogoon ne tey bàyyi mais humiliation si baaxul bul topp xaalis bi ba ne sama carrière naa ko xayamal donc moom moo war a am conscience tranquille comme Papa Sow l'a fait Papa Sow bu ñuy bàyyi man fenn laa ko njëkkee dafa war a annoncé ndax la personne booy bàyyi da nga sa annoncé après moo commencé les mais li nga amoon ay di ay problème au niveau de Fass nga dem créer écurie ñëw daanu automatiquement le le même jour nga bàyyi y' a problème donc nit ki avant muy wax. ne xalaataat réaction à chaud nañ ko éviter à chaud nañ ko éviter bàyyi ba dem sa kër nga toog nga ne man au presse bi namoon naa lii ak ak lii wala avant ngay def nga oo ak benn gétt ñi nga war toogal waxtaan na ñoom bu ñu nee continuer nga continuer booy bàyyi nga mais yow sa bopp boo xasee wax na parce que wax bal la. bal bu xasee génn si kanam pour nga téye ko c' est impossible mënut ko téye donc day dem jusqu'à l'objectif mu dal fa. donc je que tey Balla euh, moom voyagé na. il sera libre avec sa conscience il est assez responsable moom moo war a mën a toog ba xam ndax après son combat contre Eumeu Sène il continue ou bien il arrête mais je dis toujours que mbër yi nañu jéem a préparer woon encore di préparer seen sorti donc ku ci war a mën a génn je peux dire comme Bombardier muy Eumeu Sène muy Gris Bordeaux muy Balla parce que race boobu pratiquement ñoo ñoo jiitu ci làmp ñi nii après les Tapha la dëgër dañu war a préparer seen sortie mm-hmm. Euh, euh, comment ça va daal di guerre quel que gis naa au niveau de son écurie mbër yu bëri jël ñu entraîné géej ma ko mais dama gis par les images te day ànd ak ñoom di ñëw ci làmb ji donc loolu les les ténors war nañ ko mën di def di jàppale xale yi parce que ëllëg seen temps day seen carrière day jeex et il faut avoir l'amour d'encadrer il faut le métier da nga koy jàng tey euh, ñuy def mbër yi def loolu yëpp tey di ak seen i seen seen i morom seen i raq di leen am passion nekk entraîneur u écurie ba mooy li nga wax nii mhm. mais bu ci amul nga dem toog sa sa boor ba nga xam ne nga xaar nit am na combat nga ñëw taxawoo ko mais jàppale woo ko. te le même jour je vois pas mal ténor dañu am cent 200 pour cent jour combat bi nga gis mu ñëw wër stade bi fees ci ja mi jàppale mais jàppale woo ko. nit ki boo ko jàppale c'est à la préparation. à la préparation <laughs> mais pas. ci ci ci bis bi ñëw ci bis bi ñëw def sa tuus def ambiance avant bi muy bëri sax nga ñibbi mais ko jàppale wu loo ko. d'accord.